Eh, jaa ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax wéy di rafetlu seen ànd ak programme Touba Argentine TV di leen jukkil nag communiqué boo xam ni mi ngi jóge ci ambassade Sénégal bi nekk Brésil mu jëm ci déposement passeport yi mi ngi wax ni commission boobu dina ñëw Argentine dina fi nekk le cinq ci weex bi ba le 13 déposement yi nag ñii la soxal ñi seen passeport jeex wala ñi seen passeport des at mbaa ñi nga xam ni seen passeport dafa réer wala ñu bëgg am passeport lii la ñuy indaale ki passeport am jeex na indaale passeport bu njëkk bi carte d'identité passeport bu njëkk bi copier bi copier carte d'identité ki nga xam ni itam passeport am dafa réer na indaale certificat de perte copier passeport bi bu ko amee wala numéro passeport bi ki nga xam ni itam dafa bëgg passeport bu yees na indaale extrait de naissance am ak carte d'identité am ñu jot nag programme bi ci association sénégalais bi nekk fii ci Argentine ñu ni la 5 ak le 6 ak le 9 daañu nekk fii constitution chetep constitution 1269 le 7 daañu nekk José Sepas le 8 daañu nekk Liniers Sopinbe le 10 ak le 11 présidente Luis Sass Peña 16 26 loolu mooy programme bi ñu jot ñu ngi wax ni itam képp koo xam ni yaa ngi ñëw timbre bi. cent cinquante réal la ak deux cent yoo xam ne itam ci nañuy def frais ñi fi nekk ndax état bu Sénégal billet d'avion rek la séq ak ñi nga xam ni ñoom ñoo déplacé ñëw la neen li ci des association sénégalaise Argentine bi nekk fii ñoom ñoo koy def ñi ngi ñaan rek képp koo xam ni jot nga communiqué bii nga tas ko ba mu yaatu ba fépp fu ab sénégalais nekk rek mu mën ko jot